mbokki Thiès mbokki senegaal yéen a ko wax fii ci Thiès suma fi war kenn te Sénégal yëpp musuma leen war Sénégal dafa toll ci diggante yu metti liggéey bu fi gën yaatu ci biir Thiès mooy njaay wala dawal Jakarta te pourtant lépp luy defaram réew mu ngi fii ci réew mi rawatina ci cees ñii ma romb ci Pout ak feneen ci Thiès bu ñu jaayee mango ba mu yàqu amuñu pour yoon pexe lu muy suul dinañ leen defal ay usines yuy defal ay jus de ay usines yuy defar ay dàll parce que ngaay ay usine dàll rek la war a nekk kenn soxul lowul jéggaane dàll wala salon de cuir wala ay saak loolu mooy indi xëy cim réew Sénégal dina nekkaat usine Afrique de l'Ouest Thiès xam ngeen ni saxaar si dee bu ngeen ma dénkee réew mi saxaar si dina dem ba Casamance saxaar si dina dem ba maatam bu ngeen ma dénkee réew mi Sénégal dina nekk clinique de l'Afrique de l'Ouest dinañu defar ay clinique ak ay hôpitaux yi nga xam ne non seulement waa Sénégal dinañ ci faju waaye waa Afrique de l'Ouest dina ñëw di faju ci fii dinañ def ay hôpitaux mobile yoo xam ne dinañ dem fekki waa kaw gi lu leen di tax bañ a ñëw ci hôpitaux yi ndax hôpitaux yi dañuy sori te cher lan moo tax paj mi cher parce que alal bi waroon dugg ci ay hôpitaux waroon dugg ci ay clinique gars yi luubal nañ ko moo tax ñu ne république de contre république de xool leen école Aliba bi nu mu mel tax jaadu na ñun ñu jàngee ci école yi ñu ñu daan touché ay kaye ñu fekk lii bu ngeen ñu denkee réew mi Sénégal dina nekkaat l'université de l'Afrique de l'Ouest parce que fii la fi ay président doon jàngee houphouët moo Modibo Keïta ak ñeneen waaye tey suñu doom yi bala ñuy tekki dem jàng bitim réew mbokki Sénégal lu ñu dalli ay politique yu bon la te politique bu bon jikko bu bon moo koy tax donc bu ngeen bëggee di tànn xool leen ñi ngeen di tànn ngalla bu leen essayé. voté leen Thierno république des valeurs.